Ibrahima Sarr ngi mbokk yi yéen a ngi gis noonu arbitre bi ngi xool ñaari mbëri dox ci diggante Ibrahima Sarr Tamba ak Lamine Diop Kaolack Lamine Diop moo ceinture bleu moo la wan ginnaaw Ibrahima Sarr Tamba moom ngeen jàkkaar lool ñu ngi ci catégorie cent kilos yi ndeysaan ñoom ñaare gi noonu Lamine Diop gaa yi gën koo xam ci rajo xee ku ne xam na ko ci làmb vraiment ñoom ñaar Ibrahima Sarr moom it kenn waxaale ko arbitre bi sifle na mbokk yi cent ñu ngi fii ci individuel bi première place deuxième place ci lañu ñu toll baa ngi noonu dox ci diggante Ibrahima Diop Tamba ak Lamine Diop Kaolack Ibrahima Sarr Lamine daw na ko Lamine jël na daan na Radiakhé Lamine Diop daan na Ibrahima Sarr dafa am doole moom Radiakhé perte na équipe bi waaye jël na individuel bi ndeysaan looloy làmb ndeysaan looloy làmb ñuy ñëw ñuy waaye ñëw ci dañ dëpp gi dox ci diggante Serigne Ndiaye bu Fass ak Doudou ndaysaan muy Kaolack muy Fatick ak Dakar mbokk yi ñu ngi noonu ci individuel bi la ñu toll